فزت بزار في الأزال سيدة مريم la dina astakal ko mam jaara mi ma bu sobbali jigéen jëmi yoonu aras moo tiim jigéenu xërnu bi wursu sellaa dina stakal ko maam jaara bu sama ta yoonu aras moo tiim jigéenu xërnu bi maam jaara wursu sellaay nas ko mas jaara ma gis jigéen jamiin yoonu aras moo tiim jigéenu xarnu bi mooy yaay xaadimul xadim bigil ne yàlla may karim buso yow ma jaara laarime du jeex ay busa jàngal nga maayu xarnu mooy yaay xaadimul xadim bigil na yàlla may karim iwam wa maam jaara laayareem du jeex jàngal na xarnu bi xaram na gaal tàngal kafe moo tax armuwaal du leen jafe moo tax ñëpp ambu dikka fii jaara sigil na jaara xarnu bee yaara bi du juddu yaa dis gorte yaa ami may imam jaaratullaay soroon ya ca Makka ak soroon ya ca Madina baytil muqaddas am na Tuuba auzu billaahi mina rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñun ñoo ngi doon kuréelu ahlu liggéeyal Bamba doon ndaw yu bàyyi ko Touba ci gox yi nga xamante ne dañoo fasantikoo ci biir Touba mooy gox booy dégg ci Touba rek ay ndaw ay ndaw la ñoo xam ne si daal kuréel bi nag euh, gannaaw ba nga xamante ne nuyu nañ mun Serigne Mountakha Bassirou ñaanal ko mu yàgg fi te wér fii nga ñuy jëlee fii ñu taxaw di wax fi lañ sose woon kuréel gi ñun ñi nga xamante ne ñoon ñun la yàlla def ñu taxaw di wax ak yéen ak euh, ñii nga xamante ne ñoo nekk ci sama ginnaaw kuréel gi nag mi ngi tudd ahlu liggéeyal Bamba bañ koy door nag ataaya lañ doon def ba léegi nag xam naa ne ataay ji dara upp ko ci doole waaye dafa dem ba benn jamono ñu boolewaat ci yeneen bernde muy lu mel ne kafe lu mel ne ay hamburger lu mel ne ay sandwich lu mel ne ay jus naturel lu mel ne ay ndox lu mel ne ay ba tey tey tey tey sax dañ koy yokk ay añ ay añ yoo xam ne si euh, yu mucc ayib lay doon ndax képp koo xam ne si gisante nañoo yow di la jox ay añ añ bi ñu lay jox yow yaa koy portel sa bopp añal sa bopp nga xam ne doo bokk ak kenn. ndax fi jamono toll ag it xat-xati jamono ji ak it ni nga xamante ne noonu lañ bëggee mbir mi di ko doxe moo tax ñu ñu doxale ko noonu mu doon loo xam ne si daal wax dëgg yàlla mi ñu koy def ba léegi euh, ak yokk lañ ci gis yokk goo xam ne si nag moom day indiwaat euh, li ñu mag ñi daan wax ci liggéeyu la sëñ Touba tànki kanam la am rek moom tànk naaw ndax bañ koy tàmbali mën naa ne ñett ñett ñi ko porté woon ak ñu topp topp suñu ginnaaw àndoon ak ñun ak kenn ki ab la yanu kenn ki yanu suukar ñu ñëw taxaw fii nii commencé dafa ataaya ba mu jur lii nga xamante ne moom nga doon jël léegi léegi léegi jur lii lépp lépp lépp lépp lépp ñu ñaan mu gën a yokk gën a yokk gën a yokk euh, di gën a sant di santaat nag bu baax sëriñ basiiru Mbàkke Poroxaan ndax euh, bi ñuy jub bi ñuy jub Poroxaan dem nañ gisante ak moom mu sant ñu ci bu baax a baax a baax a baax a baax doon ñu wër sax pour sant ñu ndax dañ dañ dañ ko doon liggéeyal ci ñi nga xamante ne ñoo ko fi dikkal muy ganam ñi ko fi dikkal surtout policiers yi surtout sapeur pompier surtout waa Croix-Rouge ak ñi nga xamante ne ñoo wër barab bi ak ñi nga xamante ne ñooy yilif jumaa ji ñoom ñëpp ñoo leen jox ndekki bu ñu xëyee ci bisu màggal gi jox leen ay jus jox leen ay añ attaaya waxtu wuñ ko soxloo dina leen ko jox muy attaaya ju mucc ayib liggéey boobu nag ñi ngi ñaan euh, képp koo xam ne si saw ñaq dugg na ci ak koo mën a doon ak foo mën a nekk yàlla na la suñu borom fay ndax mënuñoo lim ñi ci nekk ñëpp ndax ñi ci nekk dafa bari waaye comme lii nga jël nii léegi rek lii nga jël nii léegi rek mooy ko ci gis rek bokk na ci ab xaritam bokk na ci ay waajuram bokk na ci ay sëriñam bokk na ci day liggéey boo xam ne si nag daanaka waxtu wu ñu jugee poroxaan ba ba mu tasaaroo ci li nga xamante ne moom mooy moom la ko ñëpp di seetaane ci lay ci lay ci lay ci lay dolleekuwaat dollee koo xam ne dañuy jaaxal moo muy loo xam si daal ma ñu ngi ciy woo ñëpp di ci tàllal loxo ñëpp waaw liggéey bi nag doonul liggéey ne si dafa dafa dafa laaj ay ñuy dajee dajee yu méttee méttee ndax liggéey la boo xam ne si daanaka buñ buñ ci wootee day fekk ne xalifa général daa woote rek mooy bu wootee lu mel ne bisu xasida yi ña nga ca Touba di ko def bu wootee bisu sikkaru Baay Faal yi ña nga ca Touba di ko def waaye base bi moom poroxaan la ndax poroxaan poroxaan lañ ko sam mais chaque poroxaan moom dañuy ñëw yàgg nga fee ñëw di ñu fekk gis ñu teg ñetti baraada ataaya waaye léegi nag gis nga ñu yokk na ba yokk loo xam ne si mënu ma koo lim ci sama baaraam yi ndax am nañ hamburger am nañ mburu am nañ euh, pain au am nañ yu bare bare bare yoo xam te daal mënu ma koo lim daal yow yaakaar naa na ci li nga jël léegi nii daal ba nit ñi mën a gis ne yëf yi ak yokkute am na ci nit ñi ñi ngi doolee ko baax a baax a baax ku ci bëgg a bokk yomb na boo contacté numéro téléphone bi nga xamante ne mooy numéro téléphone Baye Modou Yaali 512 12 40 dina la dugal ci biir groupe bi groupe nag amul benn bruit heure bu màggal màggalu Porokhane nga jubsee ba des un mois dina annoncé ne màggal gaa ngi bëgg a ñëw ay waay barkeeloo dina la ko ci defal barkeeloo bi nag yëmul fenn yu xeebuñu dara lu ci waay def rek des na la ko ci defal waaw loolu lañ yooyu lañ dajale indi ko fii nii pour berndeel ci gani Sëñ Tuubaa waaw.